mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax mbokki internet yi leen ziar leen ñaan jàmm di ko sakku ci yéen leen baal ak bu baax leen baalu ak yéen a ma gën a xam Leewtoo ca la muy dox mooy li neex amateur yi rawatina làmb tey ñu ñëw fii ci Adrien Senghor miin ngeen di ñu fi gis ñu ñëw bokk ak amateur yi ca la ñu ne muy làmb ja muy leneen waaye tey moom dañu ñëw bokk ak ñoom mburu meeg ak li ci topp ñu ñëw fii tey fekki waa Amalda président Saliou Diouf ak ginnaawam yëpp ñoom Aliou Ndour Alex Adja Mbayang ak ñoo xam ne daal daañu ñëw seen tur yi njaayeen yeek njuufeen yi bëri fi lool di am lu ñuy defar yàgg maar yaa ci gis gis nga lu ñuy def ñii ay njaayeen lañu ñii ay njuufeen waaye nag euh, boo demee ba ca wàll wa yaa ngi xool ca mbanama lañ cay defar xam naa ne Guinée nañ fa bari lool te am njuufeen du ko kafe. xam nga ne Amalda ñoo xewle association des amateurs. te ñoom xam nga bu ñu xewlee rek euh, la dame royale man damay ñëw teew en tant que vice présidente maa ngi ci biir. woote rek def ndogu xam nga ba ñu nekkee ak amateurs yi di nekk ak ñoom ci làmb ji ba weeru koor jot dañuy préféré bégal leen mooy togg ndogu bokk ak ñoom partagé ak ñoom di ci remercier bu baax tamit nag sunu président du jànjee ko nga xamante ne dafa yëkkati xaas bu bari jox ñu nañu def leen ndogu bégal amateur yi moom du jaan jekko merci nag waa amal daal en commençant par président Sall président Diène ngi ci remercier bu baax di woo nag yëpp nag weeru xéewal la weeru xéewal la weeru dimbalante la weeru jàppalante la nañ def rek képp ku ci am nekk rek nga jot ci ci kàttanu borom bi di ñaanal ñëpp nag weeru koor tey ñu ñëw euh, am sunu benn kilifa bu ñëw yegg si dama naan sunu parce que koy kilifa Saliou Diouf doon sunu kilifa doon kilifa Aliou Ndour euh, mooy jaamu séeréer nag waa góor gi ñu ngi lay nuyu ba. maa ngi leen di leen jàll ci biir séeréer yi. jërëjëf ba tey nangu naa maa ngi leen di gërëm di leen sant kontaan di ci am contentement trop ci ñëw bi ma ñëw fii tey te it bu ca kanamee it président Doudou Diagne mu ngi agsi mais man dama ko fi jiitu parce que muy Saliou di président. ak ñoom Aliou Ndour yëpp samay jarbaat lañu samay rakk lañu samay doom lañu ñu nekk fi di liggéey liggéey bu rafet ma ak ñoom ñuy xale yu baax ñu kontaan ci ci la ma dul jaañ tutuñ loo mënta def nag ma fa jiitu nga ñëw xaar ma dina agsi ak jàmm ñii nag xale yu am jom lañu kontaan nañ ci askanu làmb ñu tardé ci dara fu ñu leen woo ñu wuyu duñu tànk xam lu kenn liggéey bu rafet lu yàq ñu defar lu bëgg kii ñu jàpp ci ñu nag ñoo xam ne groupe boo xam ne macha allah tabaar fakal amuñu morom mën daal kontaan naa ci ñoom di leen ñaanal toujours rek mu jëm kanam looloo tax ci ay suñu tey ñu ñëw fii pour gën a waxtaan ak ñoom fowandoo ñoom weccoog ñoom ay xalaat jàppale leen ñu jàppale ñu ñun tamit ñu gën a jàppoo comme ça làmb ji jëm kanam loolu de laa amoon lu ma ciy sànni. képp kuy amaate rek ñu ngi lay nuyu. Euh, di la baalu àq ci weer wu tedd wi ñu dugg te di la baal àq te di ñaan yàlla sunu borom lépp luñ ci jaamu yàlla na yàlla sunu borom nangu ko di ñaan aussi euh, ni nga xamante ne tey ci saison ren bi làmb ji démarré na ko mu continuer ko euh, di la wax ne la sa question boobu moom dëgg dëgg mën naa ci tontu xam naa ne yow sax xëy na sa rôle ngay def rek waaye li nga may laaj ne ma gën a xam. waaye comme xëy na ñiy seetaan site bi yëpp euh, war nañu am information yi waaye dëgg-dëgg foofu moom dañu voté ci euh, vote bu leer la ñu def yàlla dogal du du gagné euh, defe naa score bi sax xawoon naa xawoon na xawoon na métti lool lool lool lool. waaw en tout cas defe naa romb na ko c'est-à-dire comme dafa xaw a yàgg daaw la woon wala daaw jéeg. jàppatuma exactement waaye xam naa ne score bu bu bu métti bu leer bu métti la la la dóora non non non na. Doudou yàlla moo ko dimbali ci euh, nekk ci kanamu amateur yi euh, ndax euh, ku disponible la itamit bëri na yoo xamante ne xëy na jafe-jafe bu amateur am mu jóg taxaw ci ba yàlla def ci ndox mu sedd donc nit ku mel noonu aussi parce que nag Sénégal moom képp ku fi yàlla teg ci kanam te ngay gëstu ñu nekk ci ginnaaw saa yoo soxlaa rek gaa yi gaa yi ne la yow la. waaye nag képp ku yàlla teg ci kanam te nga yéeg nag fàtte maana boo parce que lépp loo fi yor yoraat ko rek parce que dang nga faa mos jëriñoon dara waaye boo fa jëluloon dara boo ñëwaatee kenn du la faale li ñu kenn moomu leen euh, duudu dëgg dëgg yàgg nañoo drapeau chef de la euh, drapeau di ñëw mu lijjante fexe ba reyante fu mu mën a dugg mu dugg fa ba am lu mu lu mu bon bon mu indi ñëw teg ne gars yi lii nañ ci paas lii nañ ci dépense wu c'est-à-dire moom yàlla def na ko dëgg dëgg muy euh, nit koo xamante ne ku mën njaboot la franchement mais du caa gën euh, euh, ay yeneen affaire quoi Manga 2 mi ngi fi Diène ba tey mi ngi fi waaw di di leen di leen di leen di leen di leen nuyu aussi ñu euh, leen nuyu bu baax a baax muy Manga numéro 2 muy maam Diène nga xam ne moom itamit ku jara nuyu la ku jara beral nuyoo la ci làmb simple parce que arène bii ñu nekk tey bu ñu demee ba def ko nii mën nañoo wax ne yàlla sunu borom ci barke Maama Dieng lañ ci war a wax ak ndaw sa sële ngay gis ne Mbayang Fall ñoom ñoo bokkoon ci délégation ba seeti woon Pape Diop yàgg na tuuti bañ yégee gars yi di wax ku nekk di wax fa nga féete ñoom ñun ne ñun de suñu problème mooy arrêt Adrien Senghor ca lañ expliqué Pape Diop boole leen même jour ak ay techniciens ñu ñëw fii ci la ñu defaraate arène bi. voilà président Doudou Diagne Diecko nga ñëw tey ci ndogu Amalda daan fi ñëw. daan ko def chaque année tey ñu ñëw ba ci quatrième édition lañ koy tuddee malgré que jël nañ yu bëri nag waaye quatre yooyu rek la ñuy tuddagum nga ñëw tey fii ci Adrien Senghor ànd ak président Saliou Diouf ak euh, ñi mu àndal ñëpp lan ànd lan nga mën a wax amateur yi. waaw xanaa di leen siyaare di leen baalu àq ci at mi ci weer mi nga xam ne weer bu màgg la weeru teraanga la weer la boo xam ne weeru social la mooy comme nii rek ñu bokk ndogandoo waxtaan bokk ndey bokk bàyyi suñu boroom yërëm ñu jéggal ñu ay bàkkaar weer la boo xam ne weeru jéggalante la weeru booloo la weeru social la weeru ñu ñëpp nekk benn di ñaan yàlla rek yàlla may ñu koor bu baax nanguñu suñu koor jéggal ñu suñu bàkkaar defal ñu ubbil ñu xéwal defal ñu jàmm ñépp am dara bokk ñu bokk ko ñëpp lii nag comme ni nga ko waxee du gulet chaque jour Zal ak ñoom Diène Diouf président Diène Diouf ñoom Mbayang ñoom ñëpp daal ñu ngi siy jàpp dajale fii mbooloo mi def li nga xam ne ni mooy euh, ndogu ak amateur yi amateur nag ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amul amateur lit frappe amul amateur noonu lit frappe ñëpp ñoo bokk ndey bokk bokk ñoom ba dëgg yàlla li ñuy liggéey bari na si social ci dimbalante si yokkante te loolu dafa am solo kon ñu ngi gërëm Saliou Diouf di gërëm ñoom jigéen ak ñoom ñëpp ak Mbaye mi nga xam si turu jigéen ñi di sëñ moom tam taxawaay ba mu si am di gërëm ñu fi teew ñëpp xam nañu ñu ñëpp benn nañu lii fi am nii dañuy ñaan yàlla mu am chaque jour ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que loolu mooy amateuru làmb amateuru làmb xamul xeex xamul xuloo li mu xam rek mooy social bokk ndey bokk bàyyi te it ñoom xëccoowuñu walewuñu ne ñooy diw wala ñooy diw loolu tam dafa am solo ay amateur ba ñuy ànd ñoom ñëpp nañu ànd nekk benn nekk benn bokk ndey bokk bàyyi lu ñu am ñu séddoo ko suñu biir loolu mooy amateur làmb sportif du saagante du xuloo du xeex dimbalante la moo war ñu bokk association bi wara a ànd dimbalante kenn du xam ne kii moo kawe wala kii moo suufe na ñëpp ànd nekk benn te nag si loolu la ñu àndee nawlante suñu biir loolu la ñuy ñaan yàlla mu continuer incha allah. Adja Mbaye dégg nga li président wax. waaw euh, Birame dégg naa président Doudou li mu wax euh, mais lépp moom ñun moo ñu dooleel li may wax rek ñun amateur la ñu nekk li simple mais nekk ci ginnaawam amal daa ko xam ne du Diagne mooy suñu président ñu nekk ci ginnaaw mu dooleel ñu loolu nag bëggul suñu defet lu ñu bëgg moom la bëgg te lu ñu bañ moom lañ bañ li ma la waxoon sànq ci bëccëg mooy amal daa moom ñu ngi fii di liggéey nag ak moom duñu dem sans moom aussi du dem sans ñun. di nekk ci ginnaawam nag di liggéey te lépp loo xamante ne nag lépp moom amateur mu ngi koy dund ñun dinañ ko dund ak moom te moom bàyyiwuñu benn yoon seetaanuñu duñu bëgg dañuy xàcc ak ñun di dóorandoo te lu muy def nañu boole lu muy wax aussi boole ñu ci di boole ma a wax euh, président Saliou Diouf dans tout ça euh, social bi ñuy wax ban rapport la am ak làmb euh, social dafa bokk ci làmb parce que soo gisee amateurs yi daje fii tey ndax président du Diagne moo ñu defal ndogu moom lañ jagleel ndogu bi mu kontaan ci nag yàgg koo def parce que président Doudou yóbbu na fi ay nit biyee Maka yóbbu na fi ay nit Maka nit nag waaw ci lamb la ko jaarale parce que nekkuloon lamb du ci kii du donc euh, ñu koy gërëm di ko ñaanal nag yàlla jàppale ko mu gën a kawe fu mu nekk euh, vraiment social social tamit euh, dafa bokk ci lamb parce que soo gisee côté lamb côté mbër yi su nekkul social mbor bi du dem su nekkul amateur bi su amul sociale du dem promoteur bi su amul sociale du dem tout donc euh, su ñu demee bay def social nag def ko ci cellules yëpp euh, vraiment euh, kon social am na njëriñ waaw tout donc ñu ngi leen di gërëm yéen waa Leewtoo yéen ñi couvrir événement bi ñi gërëm tamit du jànjekoo bi nga xam ne moo tax ñu egsi fii parce que euh, association bi demoon na bay suux moom moo ko suqali donc euh, dañ koy gërëm di ko ñaanal ñoom président Aliou nduur Aliou Ndour chargé de communication bi ñoom moo Diouf euh, vice président bi Mbayang gis nga jéego yu muy def président Diène Diouf ak ñi nga xam ne secrétaire général ñoom Ablaye sañ ak ñi nga xam ne dañoo bokk nekk ay membre ñu leen di gërëm di gërëm yéen yëpp xam naa ñu ñaan nag ñu def koy at at waaw. waa Neeraan Poofi kañ la ñuy ñëw. <laughs> Neeraan Poofi nag dina ñëwaat xam naa ne nag euh, saison bi suñ ko prolongé Neeraan Poofi ci lay am date foog naa le 4 août lay doon waaw man nag Modou Diouf ñun ñoo associé euh, war a teg lamb boobu le 4 su nekkee saison bi Alioune Sarr may nañu ko ba ñu prolongé ko ci président Doudou dina ci jàpp ba ñu prolongé lamb bi parce que lamb bi dafa bari gàllankoor ren. dafa yéex a ubbi. parce que lii duñ ne bulet yàgg na def social soo xoolee stade Iba changement bu fa am si moom la léegi ñu ngi waxtaan ma leen lu duudu delluseem amateur yi ñoo ko soxla moo tax mu dellusi mën naa leen ne dañ ko forcer pour mu ñëw man am man am naa si lu ma leer duudu pour mu ñëwaat pour nekkaat président des amateurs pratiquement dañ ko forcer pour mu ñëw nekkaat ko li taxoon ñu forcer ko na ñoom wax dëgg tey ji mhm. absolument ko ko macca ko xam donc li taxoon ñu forcé ko ba mu ñëwaat tey ji gis nañ ko mooy lii weeri koor lañ nekk weeri yërmande lañ nekk weeri social lañ nekk moom ñu fekk ko ci social mu jàppale ñu nag surtout ndogu bi daf ñu jàppale bu baax li mu ci def mënuñ la ko wax ndax télévision lañ nekk mais def na si lu bëri ba pare ñëw teew donc vraiment ñun li ñu def mooy di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi parce que su fi yàggee rek amateur incha allah loo xam ne bëgg nañ ko